li waral ndaje mi point de presse bi mooy que ne <coughs> fédération Mbacké à l'époque Iba Gueye moo fi nekkoon secretaire général Moussa Sakho nekk président fédération ñaari fédération ñoo fi amoon Touba sëñ Fallou moo nekkoon secrétaire général sëñ Cheikh Bara Dolly nekk secrétaire nekk président fédération léegi bi ñu demee ba ci biir fédération ba léegi renouvelé wuñ ko bi ñu demee ba ci biir Iba Gueye yàlla def la gën ci moom yal na ko yàlla xare àjjana te yokki leeram Moussa Sakho woote këram ba mu wootee militant yépp dem ba mu demee mu ne def naa sans mouvement bàyyi naa PDS la ñëpp jóg na ko ñun PDS lan la toppe woon ma woote sama kër réunion bu rëy réunion ba ba nu paree booba ba léegi parti bi euh, fédération bi renouvelé wuñ ko ñu dem ba PDS kenn tuddatu ko Mbàkke parce que booba arrêté nañ Karim Wade exile nañ ko nit ñi am ay doute ñun ñoo takkoon takk suñu tànk tubéy jigéen ñi takk seen sër ñu nekk ci terrain bi di liggéeyal PDS ba suñ jonni tey yor parti bi di liggéey docteur Lamine Fall moom bi muy ñëw fii di militer ci man lañ ko yebal mu ñëw fekk ma sama bureau na ma damaa bëgg a dugg ci parti bi damaa ñëw Mbàkke pour dugg doomu Mbàkke laa ma ne ko ah man de xaw ma la mu ne Euh, kii Fall. Dame Dame Fall chef de gare mooy sans papa Abda Fall mooy sans mag ma ne ko ah yow de kon suñ rakk nga di suñ jarbaat tàllal naa la samay loxo ànd ak moom ci otoom ci saase laa jóg ànd ak moom ci otoom ñu ànd dem ma ne ko nan dem ma wax yóbbu la ci militant yi ne leen kii kat dafa ñëw na day militer ci parti bi nañ leen ko tàllal sunu loxo ndax ñun du écarté kenn. ban fa jógee maa ko yóbbu ba ci sëñ Cheikh Baara Dolli ban demee ci sëñ Cheikh ma présenté ko sëñ Cheikh sëñ Cheikh mii nekk group par euh, président group parlementaire ma présente ko ko bi ma ko ko présenté ba pare Lamine Fall na moom dafa am fu muy jaar yi dem ba mu demee sëñ seex ci boppam moo ne ma ce que wóolu nga kii ma ne ko ah man ne ku ñëw tàllal ma loxo na ma damaa bëgg a dugg ci parti bi dama lay wóolu léegi boobu léegi ñu nekk ci parti bi di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey mais. heure bu ne dégg ñu naan Lamine Fall Lamine faal Lamine Fall te Lamine Fall waa Mbàkke xamuñu ko Lamine Fall tout récemment la ñëw xamul luy PDS xamul lu PDS di di di di nekk ci Mbàkke ak lu PDS di liggéey ci Mbàkke ak ak yëngu-yëngu PDS xamu ko koo xam ne doo dem ci nit ñi ah xamuñu ko tey jii bu ngeen defoon micro trottoir bu ngeen nee Lamine Fall ñu ne ku ngeen laaj ñu ne la xamuñu Lamine Fall dégg léegi nag parti bi lépp nag bureau politique la waaw. man ñoom lay interpeller parce que ñoom la parce que dafa am ay ñu nekk bureau politique ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaawam waaw bëgg koo parasité fii te ñun dun ko nangu dun ko nangu tey dun ko nangu ëllëg te ab fédération euh, renouvelé guñ ko ah ñoom dégg naa ña nga woote seen kii man convoqué na ma mais dama ne du ma dem ci réunion boo xam ne parti bi woote ko ñoom ñoo ko woote te lan wax ñoom ba ñuy woo nit ñi lan ñu wax waxuñu nu turu parti bi dañu ne mouvement PDS ànd doxal Mbàkke dégg ñun ñu ne duñ dem ñoom loola lan woote ñu ne ñun duñ dem te Lamine Fall moo leen di manipuler moo leen di téléphoné di leen jox ay dëgg fii léegi nag am daan ay renseignement yu leer que ne ñoom nee na danoo woote pour tànn candidat direction bi nekk Ndakaaru nañu xam li ñuy jéem a def fii ci Mbacké bu ñu ko jéemee yëpp du sotti ndax ku ma gis man ci mboolem parti bi tey dund xool ma xam ne man dong maa ma sa taxaw arrêté président de la république ab cortège mu taxaw maa ko defee fii ci Elton bi ci croisement bi ci Mbacké ñu wax ko la ñu koy wax mu defal nu la ñu soxla woon loolu yëpp wéy na jarut jaaraat waaye li ma la xamal mooy kii ñuy wax Lamine Fall man buñ ko indi woon fii ci nii ngeen taxawee yéen journaliste yeeg ñëpp buñ ko boolee ñetti ni ma kan moo ci Lamine Fall du ma ko wone xaw ma kuy Lamine Fall mënoo ñëw nag fekk mag ñu nekk ci parti bi di ci liggéey ba weex tàll ak bi jaaw nga wëlbati kuy gone gu ndaw ñëw di banga banga ci seen kaw duñ ko may ma sàmba duñ ko may ma demb te lii bu ma ko waxee maître Ablaye Wade dégg ko wala responsable yu mag yi ci kaw danañu xam ne lii ñuy wax lu lu nu fas yéenee def la caaxaanuñ ci kalaj kalajuñ ci. li wérte mooy. Lamine Fall moom mënta jiite fédération Mbacké te nit ñi ne fi mais jiit noo nooy toogee président Ablaye Wade jël nit def ko ambassadeur mu dem ci ay quelques pays dellu siyaat nekk feek noonu am ak nit ñi jàmm di dem ci dëj yi di dem ci ngénte yi di dem ci lépp lu xew ci dëkk bi di dimbale néew ci doole yi nga wëlbatiku jë sa sàmba njoro ndaay lu jóge ci àll ba nga xam ne xamoo woon fu mu nekkoon nga wëlbatiku naan kii jiit bu ko sayer giy defee du nu ko nangu danoo lànk noo lànk ja lay Wade waxoon moom laay wax ba tey lànk na du nu ko nangu tey du nu ko nangu ëllëg jigéen ñi ku xool maire ba Seck mi xam ni parti bi fii la féete ndax mooy ndey parti bi mooy mooy lépp parti bi moom la fi ab Ablaye Wade jël yóbbu ko mu dem màkkatal mu këram dellusi yeneen ak yeneen yu fi góor gi def gis nañu ko li góor gi liggéey ci Touba ak Mbàkke gis nañu ko te fekkee nañ ko ci sunu kanam la ñii fi ne yëpp dañuy jéem a mottali ak a peinture ak a ak a sakk toj-toj yi waaye li fi nekk Ablaye Wade ko fi def keneen defu ko fi keneen defu ko fi kii wax li muy wax fa ñu doon jéem a intégré ci fan yi am na ci bâtiment yoo xam ni kuule ko dañoo baasee woon ko gannaaw. lépp gis nañu ko li fi Ablaye Wade def keneen defu ko fi te moom du ko fi mën a def. man xëccu ma Fande Mbacke xëccu ma leneen waaye du ma njëkk ci pax sama genn fu mu ci biti te liggéey ba dee bu jo jotee ñu ma jógal def ma kudd mbana su ma liggéey ba pare ñu wéer ma fii Mbacke Bawol gépp xàmmee nañ ma xam nañ ma journaliste si am nañu ma fi xàmmee kuy wut danga ñëw jaar ci man ñu def ma escalier kuy député. booy wut da nga jaar ci man ma jàppale ba nga yéeg soo paree teg ma fee di tege te tey député yi nga xam ne dañoo dem APR su nekk nekk PDS ñu ngi yegg seen i kaat kaat ñu ngi yegg xaalis keroog bañ yéegee lañ ñu noppee xam manit ma ngoy sama ngoy rek ne fa ñoom ñii jàpp ci yàlla jàpp ci yàlla bëgg PDS maître Ablaye Wade bëgg Karim Wade ànd ci kon nag ñooñee buñ dikkee te minité wuñu woon fii lu dul toog rek tey ndax am na ci ñoo koo xam ne lu ma ko tudd ba mu bëggee am dafa ñëw ci man bëgg maa ne ma damaa bëggoon ñu ñu ñu ànd ndax sama tànta nga ma ne ko waaw muy baasin sax laay wax ma ne ko waaw ndax man PDS rek laa bëgg ba nu àndee presse bi mu ñëwee danañ teg ca mbedd ba ne leen bàyyi leen ba may wax ngeen ñëw waaye ñii bu ñuy wax buñ dikk taxawaay bi ñu am mooy diñ jiital koo xam ne kii xamuñu xamuñu suñu buntu kër xamul suñu buntu néeg xamul suñu daal dikkaluñu ngeen te dikkaluñu ak dëj duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg waaw euh, parti dafa am yoon parti fédération yi ñoo ko yore fédération bu nekk ku ku bëgg sénégalais bu bëgg boo ñëwee danga fay dem ñu bind la jox la carte nga nekk PDS du dëgg wax nañ ko fii Lamine dem na seeti kii kooku dalal ko mu ne ko danaa dellusi ba sànq ba léegi man mii bi mu nekkee à l'étranger il m'a appelé fekk ñu toog fii ci kër gi di réunir nii ma jot ko ñu wax euh, ma ne ko foo nekk mu ne maa ngi bitim réew ma ne ko boo ñëwee ma ma dajale mbooloo mi ñu toog waxtaan mu ne ma waaw keroog laa ko mu mujj dégg ba léegi waxaat il fait pas si ak yu mel noonu mi ngi téléphoné nag ku nekk mais man woowu ma. et moi je dans le PS depuis les années quatre des années de Braise moi j' le le le conseil technique numéro deux de Ablaye Wade quand il était ministre d' au près de Abdou Diouf man Ablaye Wade ma jàngal. c'est lui qui m'a enseigné à l'université ku ma xamul ci PDF fi Mbacké amut